ismaila dama yàgg ak Mom, suma jëkkër la bima ma bi ñuy sëy boobu maa ngi nekk xale bu ndaw ñu sëy def nañu cinquante ans de mariage ma am ak moom douze doom douze ñu ngi nii kii suma sët la kii suma doom la kii suma doom la ñeneen nag sama taaw baa nga ne donc xam nga cinquante ans de mariage du du du vingt ans dégg nga euh, ma bugg ko te yàlla tax ñu nekkandoo Sorano mu nekk dramatique théâtre Sorano dramatique man ma nekk bale bi la Linguère ñu fay liggéey ensemble des années et des années ñuy daanu ñu jóg ba man maag moom ma ferme sama bale ma am contrat ma dem ak moom Amérique yóbbaale ko yóbbu naa vint cinq personnes États-Unis ñu ñëwoon ba ma ñëw yàlla ñëw dogal moo am lii yàlla feebar moom yàlla moo koy joxe yàlla teg ko feebar bi ma continuer di moom di ñëw bu yàggu rek laa fi jógee février laa fi ñëw nekk ak moom pendant six mois maa ngi ñibbi bi yàlla indiwaat ma ndax lii bés bi metti na metti su ma sañoon mu am cent mille dimanche ma moom mu uufal ñu njaboot bi Ismaïla baax na Ismaïla amul wax am na suma yërëmande am na yërëmande njabootam nit yi jullite la juróomi waxtu du ko raw juróomi waxtu du ko raw dina jaamu yàlla dina julli am na seede yu rafet rafet rafet du yow kenn bëggul dugg ci problème bi kenn li ma ko seedal yàlla xam na ne su ba jëkkër lu génn fii tey dafa mel ni góom ci man